dalee nag jàmm ñoo ànd xëyër yéen ñu xëyandoo yéen kaay gii di l'info Sud Quotidien Le Quotidien L'Observateur ñu xëy di xibaar naa ñu tey la njiitu mi di président Macky Sall woote ab sa jam ñaajo ngir ñu waxtaane la ñu la kan lay dialogueel Macky ndax candidat yi nga xam ne ñoo nar a dem ci élection yi maanaam fukk ak juróom-ñeenti candidat la fukk yi ak juróom benn nee nañu amuñu lenn loo xam ne dinañu ko ko wax ak Macky Sall maanaam nee nañu ñoom jale gi wuñu tey jale gi wuñu ëllëg ndax Macky Sall élection yi mu dàq du ko wut a dàq tegu ko fenn yéen a kaay bu weesoo fukk ak juróom benn candidat yi nga xam ne nee nañu Macky Sall du ñu ñëw ci dialogue bi ñi ëpp ci société maanaam du ñu dem si dialogue bi bi ñu ko xoolee lu toll ci fukk ak juróom-ñett ci organisation yoo xam ne ñoom du mooy yu nañ Macky Sall moo tax journal bii de l'info xëy sabab laa ca nee na Macky Sall mi woote ab dialogue tey jii kan lay dialogue la yéen a kaay gi nee na candidat yi nga xam ne ñoo nar dem ci élection yi en tout fukk yi ak juróom ñeent ñoom nee nañu demuñu ci dialogue bi kon nag ñi nga xam ne ay candidat la ñu fas yéene dem ci dialogue bi munta mu njëkk ne Macky Sall boycotté par la yi acteurs principal yi jamono ji maanaam ñoo boycotté Macky Sall ñi nga xam ne société civile bi dañu bokk te doon yëngatu ci lu jëm ci wàllum élection yi ñoom ñoo ne Macky Sall du ñu ñëw ci dialogue bi candidat yi tamit ñi ci ëpp ñoom nee fu xëy duñu xibaar naan ñu bi jamono ji ñi ko bëgg a fekkee mooy candidat yi nga xam ne dañu leen éliminé maanaam candidat yi ñu recalé ñoom jamono ji li ñu bëgg maanaam mbir mi yëpp ñu daal di koy commencé waat reprendre que à zéro la bëgg mbooleem loo xam ne jëm na ci élection yi maître Mame Adama Guèye ci biir journal bi ne leen tàyyi leen ko loole nag bu mu jëm kaw caaxaan baaxul ci réew mi am na lenn loo xam ne mënta nekk reprendre élection yi loolee moom lu impossible la kàddu yi nañu li nga xam ne mooy loi bi ne du ko nangu li nga xam ne mooy processus bi loole bu ko kenn xaar ci réew mi ndax mënut a nekk ministre Seydou Gueye ci biir journal bi daan nay wax ne ñi nga xam ne ñoo taxaw ne du ñu dem ci bi ñooñee du ñu ay nitu jàmm bëgguñu jàmmi réew mi loolee kàddu Seydou Gueye la ndax nee na ñi nga xam ne ñoo taxaw ne du dem ci dialogue bi ko fenn dialogue bi képp ku bëgg jàmmi réew mi ci dialogue bi ngay dem loolee moo tax moom Seydou Gueye nee na ñi nga xam ne ñoo taxaw daal di fipp ne demuñu ci dialogue bi ñooñee du ñu ay nitu jàmm bëgguñu jàmmi réew mi aji mbergaan kanute ci biir journal bi daan nay wax ne crise yi gën a rëy ci àdduna bi yépp maanaam toog ci taabal moo ko ko daal di réglé yéen a kaay gi de Le xëy duñu xibaar nañu opposition bi niki démb amal nañu deuil national maanaam dëjël nañu élection yi ministre Abdou Karim Fofana la ñuy amal gi di point actu yi ñu xëy fekk fa maître Amath Thiam mu mel ni kuy tontu Abdou Karim Fofana daan nay wax ne Macky Sall bu proposé waa conseil constitutionnel ab date boo xam ne si la amal élection yi bu conseil conseil constitutionnel gisee ne Macky Sall dafa violé constitution bi maanaam conseil constitutionnel am nañu sañ-sañ daal di dàq date bi leen président Macky Sall proposé ndax date bi avocat bi dafa jàpp ne date bi du datu Macky Sall date bi datu askan wi la yéen kay gi di Walf Fadjri Déthié Fall daan nay wax ne président Macky Sall jamono ji li mu bëgg mooy féewale opposition bi daal leen di diviser waaye nag dialogue bi nga xam ne woote na ko képp ko xam ne dem nga si dialogue bi ànd nga ci coup d'état bi nga xam ne Macky Sall jamono ji def na ko yéen kay gi ne na Bougane Gueye Dany ak Abdourahmane Diouf ñoom nee nañu duñu bi Populaire xëy duñu xibaar naan ñu réeroo am na ci lu jëm ci wàllum dialogue bi njiitu réew mi président Macky Sall woote yéene kaay gi de l'Observateur xëy duñu xibaar naan fukk ak juróom benn candidat yi ñoom tey jii danañu saisir conseil constitutionnel maanaam bu 11 heures jotee maam buy jaaw ci biir journal bi daan wax ne Macky Sall dafa war a respecter dogal bi nga xam ne conseil constitutionnel joxe na ko yéene kaay gi de la Tribune Cheikh Yérim ne lu jëm ci ne dañu ko dàq nee na Macky Sall waxtaan na ci ak Ousmane Sonko ni mu dàqee élection yi moo baaxul ndax avant mu waroon na cee waxtaan yéenekaay gi délibération maître Sidiki Kaba ministre de l'intérieur daan nay ne fukk ak juróom-ñeenti candidat yi am nañu audience tey ji ak Macky ca palais ba waaye nag fukk ak juróom-benn candidat yi ñoom weddi nañu kàddu yu maître Sidiki Kaba yooyee ndax ne nañu amuñu benn toogaay boo xam ne dinañu ko amal ak Macky Sall gi di quotidien yor yor be xëy diñu xibaar naan ñu kuréel gi di aar sunu élection ñoom A ou réew ba léegi pënd bi wureegu la Cheikh Yérim Seck nee am nay candidat yoo xam ne ba léegi amee nañu ay double nationalité journal bi di Direct News nee lu jëm ci double nationalité bu Khalifa Sall ba léegi njaw ma ngi wéytade su xam bi waaye nag li gën yomb ci Khalifa Sall mooy mu publier maanaam décret bi nga xam ne mooy wane ne nekkutul français loolee moo gën yomb te nag procureur war naa auto-saisir ci lu jëm ci dossier Khalifa Sall ndax xibaar nañu Khalifa Sall nekkatul français yéen a kaay gi di direct xëy duñuy xibaar nañu mbir mi li koy yombal ak li ci gën a yomb mooy Khalifa Sall na publier décret bi nga xam ne mooy wane ne nekkatul français ndax nag weddi xuuxaan tekki tubay yéen a kaay lay seko xëy duñuy xibaar nañu réeroo am na ci biir Pastef ci lu jëm ci wàllum dialogue bi ak amnistie bi nga xam ne ñoo koy tudd di tudd Ousmane Sonko Imam Dramé bokk ci doomu daara yu Pastef ci kasu bi dafa war a nangu ñu daal di koy libéré moom Ousseynou Ly daan nay wax ne bëri nay yoo xam ne ak ci société civile bi Macky Sall toog ci bopp réew mi moo leen gënal Ousmane Sonko wala Bassirou Diomaye Faye daal koy wuutoo yéen kaay gii di lii quotidien xëy nag fësal si mu njëkk fotob Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye ba pare sampablaaca nee na Sonko a-t-il vendu le projet mbaadu Ousmane Sonko dafa jaay projet bi ngir génn ci kasu bi loolee xam ne ñoo gënoon a radical maanaam ñi nga xam ne dañu ko doon tàngal ba mu

rassemblement ca rassemblement ba yëkkate nañu fay kàddoo nee nañu soxla wu ñu yërmande nee nañu tamit soxla wu ñu amnistie bu Macky li ñu soxla mooy seeni doom ñu daal leen di ndax defuñu leen ñoom nee ci dialogue bi tey ànduñu ci dialogue bi ëllëg li ñuy sàkk mooy jamono ji ñu amal ay élection loolee famille détenu yi ñoom ñoo ko xamle ñoom nee nañu régime Macky bi maanaam nguuru Macky gi doxuñu ci dëgg maanaam ay hors la loi lañu nee nee nañu duñu a moo leen ko teg ak toroxtaange gi nga xam ne moo ci am ak ku mu amul ndey ak parparloo gi nga xam ne nemmeeku nañu ko ak ñu bari ñi nga xam ne ñoo faatu ci nguurug Macky gi ñi nga xam ne yi nga xam ne ñoo nekk ci kasu bi defuñu xaali wala kasirana ba ñu leen di dugal ci kasu bi yéene kaay gi dale si ko nee na avocat yi maître Ngagne Demba Touré ñoom danañu ab recours daal di saisir chambre bu cour d'appel ndax avocat yi maître Ngagne Demba Touré gi de la Quotidien xëy nag dañuy xibaar naan ñu université Cheikh dañu ne na ko fekk mu faatu ci appartement ci Dakar Plateau journal bi nag nee na li ñu njort ne moo ko faata mooy lu jëm ci wàllum overdose maanaam jël drogue boobu yéen kaay gi nee na corps bi yóbbu nañu ko hôpital principal ngir amal ab autopsie yéen gi délibération xëy dañu xibaar naan ñu ay jeexe jaaxa bëri na ci faatug bay di amara waaye nag ñi nga xam ne ñoom la nekkoon loolu ca appartement boobu jamono ji teg nañu leen loxo ñoo ngi cib garde fii